mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di gërëm di ñaanal suñu waajur bu jigéen bi fi nekk yàlla guddal fanam dafal ko wér ak waajur yi fi nekk yépp di ñaanal suma waajur bu góor bi jiitu yàlla yërëm ko xare ko aljanna ak bépp waajur bu jiitu di ñaan waajur yi fi des yàlla guddal seen fan di nuyu Sénégal yëpp nag di nuyu assistance bi di jiital ci nuyo bi père Manga 2 di nuyu Ligue Nicolas promoteur bu mag bi di nuyu les sages di nuyu amateurs yi di nuyu tey plateau bi dafa riche puisque ku nekk ngi fii di nuyu communicateurs yi di ko di teg nuyoo bi ci loxo suñu papa Xaadim Samb di nuyu suñu mbokk leader en activité yëpp yu fi nekk di nuyu kër kilifa diine yu nekk Sénégal yëpp ku ci nekk sa tur sant di nuyu 14 région Sénégal yi di nuyu waa diaspora bi di nuyu parcelle 1 vingt 26 di nuyu tamit ñi ma àndal ñëpp ak waa Rock ba ci kanam incha allah. mi ngi woon Sénégal di préparer combat bi ñu jékki-jékki am fi combat bi toll Modou sàq dugg France tey lay dugg ñëw Modou loo yëg ba tax nga daw ci doole dikkat. waaw salaamaaleykum Cheikh Sarr maa ngi lay nuyu d'abord di wax fi ñu waroon jiitu muy Lions yi war a football suba di leen ñaanal yàlla defal leen ndam parce que mérité nañ ko te Sénégal yi soxla na ko bu baax a baax di leen ñaanal ndam bu rëy rëy Sénégal yëpp tàllal seen loxo ñaan gaynde yi indi fii coupe bi incha allah waaw ñun moom comme ni ñuy wax rek làmb moom duñ ci gan xam nga amaana préo ñu doon sax pour génn parce que combat bi xam nga fi jaar feebar beeg yooyu noonu fii lañ nekkoon doon liggéey di contact di def lépp lu ñu war def ko mais comme toog nañ benn temps bu gàtt ñu am lu ñu war a dem motali ñëwaat rek loolu moo waraloon dem bi parce que làmb ju nekk rek ak lu mu laaj quoi waaw dafa laajoon nag incha allah dem tuuti ñëwaat moo war loon dem bi. Ama nekk mbër moo xam ni dalaa ñeme trop dalaa ñeme trop ñaari baat ñett ba sax keroog bi ñu waree daje ci arène national dafa ne Modou Lo su mënee na indi ngembam face to face bi ñu njëkk fi bëre bu ñu paree doog a bëre le treize. ñeme googu Ama ñeme la jaaxuloo la tuuti. ah xanaa de kenn warul jël adversaire di ko ragal. ah li mu def loolu la war a def rek xam nga waaye wax ju bari jaru ko li ma ko tontu ci li mu waxoon dégg na ko man nee naa ko sama oto foo fu ma toog ngéem mu ngi moom laay doxantoo moom laay defee lépp mais na ñëw ñu laal ko nii ah ñu laal ko nii ama ah, nañ ko maye léegi nii ah, parewul day soob rek sama ñaari ana waa pare ngeen non moom parewul moom parewul day soob rek day wax ni rek maam Serafa gis nga xoolal wax dafa yomb wallahi wax dafa yomb waaye la treize yow doo dara xoolal wax ma duma la yow ñi ngay toojante sama ñaari gaañ déedéet déedéet déedéet sama ñaari gaañ déedéet sama gaañ déedéet déedéet ah lamb dekki na lay mani mani seex seex ay ca Modou waaw Modou Modou waaw wax rek dama sama gaañ yi may leen ko may leen ko mu ñëw lu bëy lekk di cib cibi moom la xar lekk na miit man munu ma am bis bu ma dépassé ci làmb bis bu nekk am naa ko isam la du moom moo may def loolu ma warul def wala mu wax loolu lu ma warul wax mais wax ji muy wax rek la am ci làmb ji wax jii muy wax la am ci làmb ji te yàlla nañu yàlla mooy talak fekk ba le 13 mars incha allah. ama Modou ni mu nekkee roi des arènes ñëpp gis nañ tàkku tàkkusaan boobu Pikine la dugg. jël Eumeu Sène daan ba yàlla buñ ko dundati ci àdduna mu métti lool mu jël roi des arènes bi yóbbu ko parcelle waa Pikine ngemb la mbaa xam nga li fay fekk. xam nga héritage Pikine maa ngi noonu Pikine man maa dondu Pikine man maa téye drapeau Pikine saju maa sax way diloo waa Pikine dofuma sax bay way diloo waa Pikine. maa ngi lan mooy way diloo waa lan mooy way diloo waa Pikine. mooy Modou Lo mu am si man kaar appui du waa Pikine xam nga kaar ma am yow. kaar appui laa xam nga kaar waaw loolu laalo la wax. bu ko si amee sax Modou looy tontu foofu. kii soxla ma ko daanee kaar appui. tuuru bu këpp ko rek man soxla ma ko eh, daanee kaar appui. non waxuma kaar appui de dama su amee kaar appui sax defet la su ma amee kaar appui bu amee si man kaar appui defet la waa Pikine. la soxla wu ma la daanee kaar appui. noo ko soxla daanee Modou. dóor mu këpp wala waaye yow. Oh. li may laaj mooy Modou Lo laay laaj ne ko werante amul ci ne Ama Baldé du xaar tey bu la sëkkatalee ndax gis nañ ne moom làmbam yëpp bu arbitre sifflé day waaxu witi la bu la sëkkatalee lan la fay fekk beneen bi mooy ñu gis na yàgg na laa topp nga dem ba doon roi des arènes sa première sortie nga njëkk a dajeeg moom lan nga nëpp ci biir ak lan moo tax nga nga def loolu Ama Baldé li ma koy wax mooy werante amul ci ne roi des arènes bi ci sa la ko jëlee muy Eumeu Sène maanaam da koo jële Pikine nga jël combat bi te dañ ne woon mbooleem lu manqué boo ñëwee da nga mottali lañ la ñuy xaar ci bés boobu jërëjëf. macha allah maa ngi ñëw ci Palla xaaral ñu tontu. acca bisimilah Modou. waaw waaw mu ni saawaay moom day day day day mam mu ñëw quoi bu ñëwee lu bi fi fekk. ah bu ñëwee xanaa fekk ma bind rek wala kuu bu saf saf <laughs> ah amaa dégg nga loolu awa awa yorum ci ba pare non ñaari question la ñaari question dafa wax tamit comme yàgg na ma topp uh-huh. ma jël roi des arènes suma première sortie ma jël ko sama bëgg-bëgg loolu la woon xam nga dama bëreeg su may mag man ñii ma war a bëreel ñooy su moroom sama bëgg-bëgg la woon bu yàlla defee ma jël roi des arènes ma jël ci samay morom bëri ñoom sama bëgg-bëgg la woon moo tax ba ñu waxee moom hésité wu ma sax di ñaan yàlla nag may ma ci ndam incha allah. incha allah du ñu teew fii ba dem du ñu toog fii ba dem te du ñu wax lu waral jotaay bi benn di ci jiital Luc Nicolaï Nko l'homme des grands événements di ko ñaanal jàmm di. gërëm tamit dembaka bu baax a baax borom KP yi Sénégal rek ko ñor di ko waa Sénégal yëpp dañ ko yoroon njukkal dañ ko yoroon njukkal bu baax a baax parce que signature bi waxoon ñu bari waxoon du am tey moo ñëw pay leen ko ak KP yi te incha allah làmb ji moo leen ko nar a ak KP yi kon sénégalais bu ne yore yoreel na ko njukkal parce que ku nekk waroon nga jënd paas dem di seetaan pay per view wala yooyu noonu tey mu pay leen làmb ji dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ba yéene bi mu am ci Sénégal yàlla mottali ko moom vraiment. dañ koy ñaanal di gërëm nag mooy duñ toog fii te gërëmuñu ñu ñuy jàppale xam hmm. nga di ci jiital parcelle 1 ba 26. parcelle 1 ba vingt 26. waa Fandène sama dëkku yaay di gërëm waa Taïba bu baax a baax. Hmm. di nuyu père Birame bu baax a baax ak am di ko di nuyu monsieur le ministre Amadou Ba. di nuyu Adama fay bu baax a baax. di nuyu père Cheikh Cissé borom ETM ah di nuyu Bamba Fall. borom dar responsable politique di nuyu monsieur Tine moom it di responsable politique bu xombal di nuyu sama boy Ousmane si ah di nuyu Abdou Mbaye état di borom Pikine di nuyu grand alsan doy point com di nuyu bokkum bu see salima ah. di nuyu góor gi si Dieng sama doomu day ak ngañ da Sagana Diop ak Youssou Ndoye Papa Aline Ndiaye ah di nuyu grand Habib Dem bu Sones di nuyu colonel Cheikh Tidiane Cissé di nuyu sama doyen boobu di Laurent waaw Colim da ngay jum di nuyu Amsata bu baax a baax di nuyu Xaadim Fall Transit di nuyu staff Rock Énergie bu baax a baax a baax di ci jiiral père Ndiouga Dia ngunda ak sama mag ak suma mag sama mag sama mag muy Ibou di nuyu waa Rock Énergie yëpp yëpp kontaan naa bu baax di nuyu Sénégal yëpp di nuyu génération xarañ xarañ famille xarañ moo ñu boole père Cheikh père Moussa papa Moussa Andy Cheikh Oumar Andy directeur moom it maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax incha allah di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yàlla may ñu ndam bu set suba incha allah di nuyu tamit gendarmerie ah parce que wax dëgg yàlla bu affaire yi yeggee fii ñoom it seen loxo mu ngi ci bu baax a baax ak yéen communicateur yi tambour major yi ak mbayeng lum journalistes yi ñoo ngi nuyu ñëpp daal ku lim juum maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp